te bu leen di tuwaaletu di génn ci mbedd mi di wanewu te fuñ ne julli jot na ngeen dem julli ji suñ ne asaka jot na su fekk yéen a ngi liggéey liggéey bu dagan ngeen génn asaka tey topp yàllaa ko yeneen yenentam li tax yàlla digal leen ko daa am lu mu leen di moytul wa qarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarruja jahiliyati al ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasulahu innama yuridu llahu li yudhiba ankum rijsa ahla albayti wa yutahirakum tathira wadkurna ma yutla fi buyutikunna foofu lay teree jigéen ju yëkkati alxuraan di ko wax ca kaw yëkkati xasida di ko jàng ca kaw wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal xikma dee leen jàng alxuraan ak xasida waaye toog leen seen néeg di ko wax ndànk yéenu neen kon fi mu waxe loolu la wax ne it bu génn munta ñàkk na muur aw yaramam bam ne ma lanc lu dul lam munta nëbb te bu ko nëbbee duutu gis wala duutu làmb wala duutu jël wala duutu joxe yaa ayyuha nabi qul li azwaajika wa banaatika wa nisaai almuminina yudnina alayhinna min jalabibihin wala yubdina zinatahunna illa ma dahara minha loolu alxuraan la waaye bokk yi li may wax ñépp ko xam fi ko nit ñi gisee ci réseaux sociaux yi gis naa ko càmbar ko bu nekk loola du diine leneen la leneen la diine xamu ci dara day xaar ba loola ñëw ne ko àtte ma mun ñoo tax nit ñi bàyyi ko waaye kuy tudd seexul xadim di tudd lislaam su ci dugalee loo xam ne lislaam xamu ko seexul xadim mosu koo dund te it bu ëllëgee dana ko layoo ak ñoom mënu si sa fexe ba nit ñépp na coow jaar ci aw yoon waaye ñi nga xam ne tàmbale jaar ci weneen yoon ñi ngi ci siraatal mustaqim la ñuy bañ ñu génn ko ñi ko génn ba noppi dellu si waat ndax am na ñoo xam ne yàllaa ngi leen guuxal mer saa bu yàlla rëddee nit far mu rëddaat mu far ñetteel ba yàlla daf koy far rëddaat te fekk faatu na bu yàgg bañ suur ko aaya bi mooy yaa ayuha alladina amanu laa tatawallaw qawman gadiba allahu alayhim qad yaisu min al axirati kama yaisa alkuffaaru min ashaabi alxubuur mooy lan képp koo xam ne ci meroom yàlla lay dox buleen ko def kilifa buleen def taxaaluf ak moom mooy am genn ku rek moom ndax ku naagu ni addunaam baax na allaaxira ma koy raw day dugg ci daairab kuffaar yi nga xam ne nee nañ ku faatu jeex na tàkk te am ñu ci dolli pas-pas léegi ci ci tubaab yi ne kenn ku nekk lu àddunaam mel na la àllaaxiraam mel ku fi am kër yu baax day wéy ku fi amul kër yu baax comme ñun africains yi ñun sawara lañ jëm loolu du dëgg kan mooy responsable ci jëf yu ne mel kan jullit yëpp jullit yépp ndax yonent bi nee na woon wal takun minkum ummatun yad'una ila alxayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkar yonent bi ne ku gis loo xam ne du noona ñetti pays ngi nii yoo xam ne bu dee jullit la mënu saa ñàkk taxaw ci benn na taxaw ci pays bii faxas ko mu daj su ko mënut mu reeteet ko ne lee baaxut su fekkee reeteetam amul njariñ mu naqari ko tem bañ caa bokk tam kum seen nga jëm si bu la mënale dara mu téye la bokk yi jullit yi yàqule ci pas-pas mënut a weesu gëm na ni ngay dunde bu boo faatoo noonu lay demee te tegoo ko ci jaamu yàlla gu leer ñii jaamu yàlla piir sax kenn ku rafet njort ci mbiram amut moo tax si te lu ñu woon a lekk te lu ñu woon a naan ndax ku lekk naan man ngaa gëmmentu nelaw lu bare raw la xamuñu ngoon lay doon xamuñu suba lay doon xamuñu bëccëg la xamuñu guddi la xamuñu at man la loolu secret bu suñu borom téel boppam la mu bokk ci yent ba juróom yi mu wax ne joxu ko kenn bu ne woon inna allaha eh, ilmu saati ilmu saati eh, eh, inna allaha indahu ilmu saati su ne woon ilmu saati indahu keneen mën a xam waaye daf ne indahu fa moom daal ilmu saati teg ca yu bari teg na ca ne yàlla moo xam jigéen lim ëmb lan la loola xam-xam dem na ba di gis ne góor la jigéen ci ëmb walla jigéen wala ay seex waaye la ca yàlla xam te kenn xamu ko ca mooy ndax kii jigéen ci ëmb day dem sawara wala day dem àjjana bu ëllëgee ak day gudd fan day gàtt fan day am wërsëg wala da koy ñàkk euh, taw bi taw xam-xam dem na ba wane ne fii ak suba sa ngoon wala fee ngoon taw bi dana agsi waaye la say xam-xam bu yàlla xamulul kenn mooy taw bi kan moo ci war a lekk li may ñoral kan moo ci war a lekk wér te fekk mi ngi wéradi walla kan moo ci yóbbale te bu àllaaxiraam te fekk ñorut du ko lekk ak kan lañu war a suul ci bàq boobu nit mën naa xam lim jaay tey gis ko ci ter terroir bi waaye ëllëg la cay xam-xam mën naa gis clientèle bi ak demande yi am ci guddi gi mën naa am yaakaar ci ne mën naa am la mu amoon bu ëllëgee waaye wax yàlla du démb la mu amoon démb mën naa am lu ko ëpp tey ndax commande yi waaye li ci yàlla xam te xamalu ko kenn mooy mada taxi bu xada mooy moom bu ëllëgee commande yii ana ci ban commande mooy commande bi nga xam ne su jotee ci xaalis ba ordonnance la koy jënd te day faam ba ca topp mooy fan la nit di faatoo ku munta xam fa muy faatoo yàlla nëbb na ko lu bari lim nëbb ñu bari moom la benn waykat daan wax ne wa qul liman yaddaci ilman wa maarifatan arifta shay'an wa gaabat anka ashyaau kon gannaaw loolu bi ma mujj wax mooy xam fu muy faatoo léeg nga gis jëmm joo xam ne day defar barab ne nañ ko indi fii bu faatoo di jàng alxuraan di fa yóbbulu di jàngalu ay xasaay di fa yóbbulu di fa toog ay ñam weddi na suñu weddi na wax suñu borom yàlla moo ne woon wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut aayat mi ngi tàmbalee ci inna allaha indahu ilmu saati wa yunazzilu alxayfa wa yalamu ma fi larxaam wa ma tadri nafsun maada taksibu gadaa wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut kon ku rafet njort ne fii mu nekk ak lii di nuru teraanga bu ëllëgee nii lay mel ku ànd ak moom nii nga koy àndeek moom pas-pas bu màggat la bu yàqu yonent bi mus am ak kóolute ci boppam ba tax koy julli guddeeg bëccëg te yàlla xam xamal na ko ni te waxe yàlla du dañ te yàlla waajal na ko téewutoon muy fanaanee julli di fanaanee dëkk koor gu bari gum dul wax nit ñi dëkk lu mu am saraxe ko bokkook nit ñi tëlutoon a noos tëlutoon a nelaw tëlutoon a lekk yenn lekk yi léegi sax dawu ko am far te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa ki gën ci yàlla bind ku xam ne nag ñu baax ñi ñu xamoon ñépp ña nga sa jaxasoloon ak ña nga sa jaxasoloon ñépp ku ñuy wax dee moo ñu ko xañ war ngaa xam ne bis dee dana dikk sa kër te it ña dem itam kenn mënu caa war su gént naa rek gént léeg-léeg mu doon dëgg léeg du ko doon léeg-léeg nga gént jiw ñu wax ñu wan la ko ci melokaan bu rafet te fekk safan bala jële naa ci doomi Sëriñ Tuubaa maa ngi toog mu am kum laaj ne ko ndax diw ba mu faatoog léegi mas nga gént gis ko te ku taxawoon ak koo xam mu ne ko mook diw day mas na maa géntandoo seen mbir ñoom ñaar kenn ki ba ma ko laajee dañ maa won benn tabaxu ban boo xam ne raaxit ja tuutee ca des raaxoon nañ ko pentir ko waaye xolliku na raax ba xolliku na bàyyi fa ban ba ma nga ne fang néeg ba ña ngi ko dott dott boo ko déggee mooy seng bu ñu bañ mu naaw ñu takk weñ gi ñuy wax weñ gi ñuy defee ay ligne koñ bu nekk ñu takk ko ca gas ba mu xóot ñu diisal ko ba nga xam ne ngelaw du ko mën a jël euh, néeg ba amul bunt amul palanteer ñu ne ma fee la nekk nangam la defoon ca lañ ko fayee néeg bee te looloo léegi tey mu jeex te bu jeexee sawar lañ ko jëlee mu ne ko ki ci des nag nga xam ne moo gën fuuf ki ma jëkk laaj kooku laajte naa ko ñu ne ma ba mu fi ba mu ñëwee àlla barsax ak la gisagul Seexul Xadiim ma ne lu tax gisagu ko daan ne xefeet bokk yi bokk jullit yi bokk jullit laay waxal nag yàlla du ay caaxaan ay mayamit fam ñam koy may duñ doon ay caaxaan kat wa rahmati wasiat kulla shay'in waaye daf ko wutal ab sart fa sa aktubuha lilladina yattaquuna wa yutuuna zakata walladina hum bi ayatina yuminuun teg ca allazina moom ak Sëriñ Tuubaa it lim yor nekkut di wëndeelu ak a dajalaatu ba yàlla jox ko ko déedéet daf ko kaññe wax na ci ay mbindam ne fu ngeen gis teraanga nekk fa tudd teraanga dëgg-dëgg ay caaxaan andiwu ko fa dem ba defee ne àdduna dutu jeex cëpp cëpp guddi cëpp cëpp bëccëg te wolof yu njëkk yi danañ caxante ci waxe wolof ñu ne lu lu lu suur ba jant ku ñuy wax ndaamal gosaas la ba mu des ab xaal xaal moom su suuree xaal bu jeex kenn mësu ko gis tey dund xaal bu jeex tey dund kenn mësu ko gis waaye bis bu jàppee suuraayam boobu ba defee ne man cëpp ca PDS ñu am voté wala murti def wala def gaa yi kaay leen rek séddoo boobu am na lu xewoon lii xew léegi rek àdduna sëpp na kër kër na këpp lépp bari ku ñuy wax ñu seexu sala nee na fekk na ko mi ngi dëkkoon fi yi tubaab daanañ jël ci xéewal yi ne ci biir kër sëriñ bi diggante ay gàtt yu baax ak yam yu àndal ak i mbajj mbajj yu nooy yi xew léegi ak laj koloñ yi nga xam ne kenn mënu ci am sax lu bari fi mu ne nii sëriñ bi lu ne lu ne jub la ci am ñu jël misk ak sanfaraan sanfaraan dem ba ci àll bi ñu dal mbajj yu baax yooyu defar gàtt yi lii ñu def ko li ñuy wax way nu cuus lii ñu afra lii ñu wàjj ko lii ñu lakk ko lal mbàjj yu baax yooyu indi warga yu baax yi ak yëre ataay yu baax yi bu ñu fa defee fan yañ fay def bu ñuy jóg bàyyi ko fa dem seen yoon te bu guddee misk ak zafaraan la lañuy jël di ko taaloo àll bépp laj ko lañ ku dib jullit te xamagoo Cheikhul Xadim demal wëri alquran wala yonent bi na tam wér soo def sénégalais te jullit te murit laajtal ana fu Sëriñ jaaroon ci nangam ak nangam su ëllëgee murit yépp suñu baat waxoon na ko Sëriñ Tuubaa dong lañ bëgg ñu laaj leen ko ndax ñee woon koo ne looy toppee nit mu ne Sëriñ Tuubaa koo ne dañ lay toppee bu fekkee bëggul àdduna tey wax dëgg Sëñ Tuubaa ndax li ki topp ki ko topp ki topp nit ki li muy defal ki mu topp ki muy topp xaaji ko ko defal waaye defal genn wàll rek ndax day liggéey ba am xaalis mu jafee am lool ñu di ko dàq guddeeg bëccëg mu ngi daw ba am ca aslëf ñëw këram ñu ne ko daane si biir mu toog di ko xaar bàyyi ay soxlaam jox ko ko ñaanalaat ko dalal ko ca kon moom moo defagul dara waaye kii defagul defalugu ko dara suñ Tuubaa nag moo tax yàlla ko xam te yam ca te teg tànkam fi Sëñ Tuubaa tegoon lu ko mooy bu ëllëgee téere téere te téere baat rekk say mujj yàlla na yàlla musal ca loolu nañu delloo si waat xel yi yeesale ko pas-pas yi yàgg na waaye tey laa ci mujj a wax ndax amul boobu solo euh, yàlla leen alxuraan qulil xaqu min rabbikum yonent bi la ko waxoon fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur waaye nag inna a'tadna lizalimina naara axaata bihim suraadiquha wa in yastaxidu yuxaatu bi maa'in kalmuhl yashwi yashwi lwujuha di بئس الشراب وحسن وساءت مرتفقا yàlla na yàlla defal dégg ak topp ñi nga xam ne dañu jaayante ak jigéen nag ñoo mat a waxal tuuti foofu laay jeexale ñooñu yàlla taxu leen di def yeneen bi taxu leen di def ndax Sëñ Tuubaa ku dib sénégalais umpeetut noona fi murit àgg Sëñ Tuubaa doxutoon tànkam ba àgg fa fi mbindum Sëñ Tuubaa àgg Sëñ Tuubaa doxutoon tànkam ba àgg fa te àgg na fa fi mu àgg na ba raw foofa fuuf koo xam ne nag sa pas-pas da koo bëgg a jaar ci jigéen ju tuddoo Sëñ Tuubaa ngay jaayante ak moom di ko jox loxo sa loxo ba dañ koo war a dagg ba noppi ndax mën naa doon soxna jàmbur jigéen ja it am na lu ko war a dagg ndax wala yubdina zinatahunna illa li buulatihin ba ña ko war a gis gis ko waaye umpale suñ Tuubaa moom mënut a am cib Sénégalais jaayante ku jigéen xanaa baayam sax jaayante ak baayam muy góor ngay góor waaye jigéen jàmbur bàyyil ko fa jàmbur rek te bàyyi ko yàlla moo ko jàmbur yàlla nu yàlla dimbale ci dégg ak topp te musal ñu fi seytaane ak takki seytaane te fu nekk lay téqtale nit ku wut yàlla ci boppam doo bàyyi ab yonentam doo bàyyi ay yonentam doo bàyyi ay awliyaawum doo bàyyi mbooleem ñi ci topp ñépp ak saalixiinaam fenn fu nekk danañ ko fa galgal waaye fi ñu ko jaaree nag dafa fes bu ëpp bu ñu jaay oto tubaab bi sax bu ñu jaay oto bu rafet jigéen la ñuy def yaramu neen muy raay oto bi ak wër am na ñoo xam ne jigéen ca nekk di wër oto ba moo leen di indi ci oto ba bu ñuy jaay ndima lu yees jigéen lañ koy solal mu rafle lool ngay xool jigéen ja di xool lam sol bu ñuy jaay marchandise jigéen lañuy yabal moo koy jaay su ñuy jaay bu ñuy kartaloo nit ñi jigéen la yabal waaw jullit bi nag war naa yeewu ci ne ñii dañoo bëgg delloo jigéen fa mu nekkoon laata lislaam di ñëw moom mu fat waa këram ak njabootam te lu ñu woote bu fekkee xool na ay jigéen di lëj di ca lëj moo xam sax ñii danga xasida yi tey ay jigéen mënuñoo wane fenn fu leen ko Sëñ Tuubaa digale te murit Sëñ Tuubaa nee na dong mooy référence mooy référence am Sëñ moo bindoo ne laa tafaalu shay'an bi xayri idni fal idnu shartun fi qabuli shan buñ lay jàngal nax baad baadul baad day am ak baadul kull ak kullul kull ak kullul baad wala ashay shay shayu shay ak baadu shay ak kullu shay ba mu àgg waaye laa tafaalu shayan lenn bu leen def dara dara dara dara lépp lépp la ci yamal bi xayri idni te bu Sëñ Tuubaa doon digal jigéen ñu jàng xasaayid soxna Aminta Buso kenn du ko dàq jàng xasaayid wala soxna Awa Buso wala soxna Aminta Lo fekk nañ xasida yi bi ko Sëñ Tuubaa taalif mu mu koy xëpp seen loxo wala soxna Fatou Ndiaye doon tudd léegi kenn gën leen a xam Sëñ Tuubaa kenn gën leen koo bëgg kenn jëkku leen a xam xasida yi soxna May mii fi mujj kenn mës a dégg mu yëkkati xasida wala mu yëkkati alxuraan daf ko naa yor di jàng rek. moo soxna Assa Gawane ñoom soxna Moussa ñoom soxna Mbène Gabu ñoom kon seytaane dajaale foofu fépp rek ndax baatub jigéen ginnaaw mayuñ ko nodd mayuñ ko mu ne xam moom ci boppam buy julli far ko dégg ca lañ ko mu jàng alxuraan ci biir julli xanaa moo raw moo moo gën lépp ndànk la koy wax nañu dellu si waat xel yi tey téye ci loxo yi léeg lekk ne bul fi defee nangam. ndax kat alquran nee na uxshuru alladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu yabud wa azwajahum wa ma kanu yabuduna min duni illahi fahduhum ila sirat aljahim alladina zalamu saa bu ab jullit tegee tànkam ci li yàlla santaana ma nga dugg na ci kàr boobu yàlla nee na bu ëllëgee day digle ñu pang pang boo ko déggee mooy maas la ñëpp police yi sax bu ñu ramasse bala ñoo wax kenn na nga dem commissariat bu ñëw boo ñëpp door caa yàlla ne pang leen ñépp ñoo ñañ doon topp te du la yàlla fa yàlla santaane woon ngeen wan yoonu sira siraatul jahim waaye ñooñu dañuy yëkkati seen loxo yàlla ne lu ngeen wax yàlla na ñooñu ne ñee di dem àjjana bàyyi ñu fii suñ demee aljanna bàyyi ñu jëm sawara danañu daxal yàlla lu tax mu ne muy mu ne ñu ne yow nu jaaroon ñoom ba war a dem aljanna suñ ñu ko waxe woon ba mu leer suñ bopp ba mu jaral leen bàyyi ñu wala ñu bàyyi leen ñu jaar sa dem ni aj dem ajjana ñu ñëw waqifuhum innahum mas'ulun yaghfiru llahu lana wa lakum wa li sa'iril muslimina amin Rafah TV une chaîne de a culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer